dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyandoo coowul suuf li nga xam ne moo dox diggante askan wi yeewoo ndeng leer ak promoteur bii di Babacar Ngom ñu bare bare wax nañu si mbir mi daal di tagg tembe njiitu réew mi di président Macky Sall daan na ci dugal ma ndax wolof Njaay nee na taal bu të tàkk wet gu nekk lañ koy ëffee yéen kaay gii di réew mi ko di mu xëy di ñu xamal la ñu en tout cas géta gi taroon lool te askan wi dëkk ndeng leer ñoom nee na ñu woon ay bés bii daal waat seen suuf ndax dañ siy bay médiation yi bari woon na proposition yi bari woon na njiitu réew mi di président Macky Sall dogal bi nga xam ne jël na ko mooy jël suuf si delloo ko askanu Ndingler su ko defee fii ak ñetti weer ñu mën see bay négociation yi di continuer Aly Ngouille Ndiaye ministre bi ñu dénk kaaraangi réew mi moom demoon na Ndingler la mu xam ne nee na bi njiitu réew mi di Macky Sall jël loole nag waa Ndingler daan nañu si kontaan te Babacar Ngom daan na koy nangu yéen a kaay gii di Vox Populi mu xëy di ñu xamal lan ñu suuf si nga xam ne moo waraloon coow li diggante askanu Ndingler ak promoteur bii di Babacar Ngom njiitu mi di Macky Sall jël na suuf sa delloo ko waa Ndingler yéen a kaay gii de la témoin mu ñu xamal ñu xeex bi doxoon diggante Ndingler ak promoteur Babacar Ngom Macky Sall xaajal na leen nee na Babacar jaaral fii wax askanu Ndingler ñu jaar fii yéen a kaay gii de Dakar Times xëy ci teraanga jullewul ji nga xam ne moom lañ doon tuumal bii ba Bourgi ba jël ko tëj ko si kaso bi état bu Sénégal dafa jël dogal maanaam daal di jaay yii di Eden Rock journal bi nag xëy na nag def si ab taxaw seetloo nee na appartement yu bii ba ngi wax ne dañ koy jaay waaye ana moomeelu Karim Wade bi nga xam ne waxoon nañ ne teg nañ ko loxo moo xam ay moto la moo xam oto la moo xam montre de luxe la moo xam xaalis kaas la moo xam ay compte bancaire la yéen kaay gi mu ñu xamal la ñu en tout cas avocat bi ba Bourgi maanaam daan nañu dànkaafu képp koo xam ne bëgg naa jënd appartement yu Eden Rock yéen kaay gi di enquête mu ñu xamal la ñu Moustapha Cissé Lo ñoo ngi koy xaarandi ca kanamu yoon réew mi quotidien daal di xëy wax ne Moustapha Cissé Lo gis nañ ko ci toolam yi nga xam ne moo nekk ci wetu bayaax yéen kaay gi de la moo jiite MEDES mouvement entreprise Sénégal daan bi nga xam jamono ji ñoo ngi si liggéey ngir nag lu jëm ci relancer économie réew mi ginnaw covid 19 ñoom waa MEDES nee na jamono ji ñoo ngi siy liggéey te liggéey bu am solo la moom président ba ñu jóob ci yéen kaay gii de la témoin wax ne coronavirus jafe-jafe yi nga xamante ni andil na ko wàllum koom mi ci adduna bi ak entreprise publique yeeg entreprise privée yi ba ci biir kër yi wax na ci lu soxal mesure fiscale yi nga xam ne état bu Sénégal waxoon na ko ngir nag dimbale entreprise yi ba ñuy jóob nee na mesure yooyu nag yu am solo la waaye yeex na lool ci côté administration fiscale wax na ci jamono ji ci liggéey bi nga xamante ni MEDES ñoo ngi koy def ngir nag prise en charge bu am solo jëm ci dette entreprise privée yi journaliste Le ko na ko waa MEDES ndax am nañu solution ci lu jëm ci financement des entreprises la leen xamal mooy liir leen livre blanc bi nga xam ne génne woon nañ ko 2017 ba tey ci biir yéenekaay gi di réew ko dëjee mu xëy ci lu soxal wàllum tabaski gi ak xar yi nga xam ne jamono ji cher na ba maara détail yi ñi nga xam ne ñooy éleveurs yi nee virus tabaski gi ma ngi wàcc waaye nag coronavirus rawatina cas communautaire yi ma ngi ne coobay ci réew mi yéen i kaay di source a xëy ci rapport yi nga xam ne inspection générale d'État génn na ñi nga xam ne ñooy waa LD daan nañu koy càmbar waaye nag ñeen nañu ñoom dañoo am mbetteel ndax ay looxoore ki njaaxum yu doy war la ñu sa fekk yéen i kaay gi di Vox Populi ak Libération ak l'Observateur ñëw ci xale bu jigéen bi nga xam ne maanaam moom la ñu yeewoon Sacré-Cœur ay xale yu góor ñoo defoon lu ni mel vidéo bi nag ma ngi xale bu jigéen boobu xale yu góor yi dañoo jàppoon ne ab sàcc la journal bi nee na xale bu jigéen boobee sax àndul ak xelam waaye nag ñi nga xam ne ñoo def ñaaw téef googe am na si ñaar ñoo xam ne teg nañu leen loxo am na si koo xam ne ñoo ngi koy wër ba léegi nii dafa ne mes na menteñ yéen a kaay gi du sunu làmb xëy ci combat bi war a dox diggante Tapha Tine ak Boy Niang 2 yéen a kaay gi nee na Tapha Tine ginnaaw combat am Ama Baldé bi la ji ndax du danger si Boy Niang 2 journal bi nee na combat Tapha Tine Boy Niang bi ñu taxawal maanaam Lac de Guiers 2 mooy le grand perdant